le Pogomagan est là. man maa ngi jël de dama jël li waaw. le Pogomagan est là Ndiogou Mbaye mon ami mon frère mais Ndiogou mon ami mon frère <laughs> naka la. l'international est là. le centre du peuple le soir du peuple est là. le centre du peuple le soir du peuple est là Wally Ballago Seck mon ami mon frère Baye Fall bi mes mais Wally mon ami mon frère l'international baa ngi noonu i baa ngi noonu le soir du peuple le centre du peuple gars ya ko wax de macha allah Wally ngi noonu le centre du peuple le soir du peuple. Wally Ballago Seck après sa visite ci fi nga xamante ne moom mooy prison xale yu jigéen ñi fête euh, journée mondiale de la femme Wally Seck dugg bégal euh, prisonniers yi nga xam ne ñu ngi si biir sa première réaction lan la. waaw on est content def nañ yëfu yëfu nit rek ah. loolu moom c'est trop simple on est venu voir nos sœurs ah ay jigéen yoo xamante ni ah indi ñu fi seen bopp. ah nattu la you know ñëw seet leen bokk ak ñëw fête bi di ñaan ñaanal ñu ñibbi seen kër nu mu gën a gaawee incha allah. alors alors waa. parce que c'est tout à normal c'est c'est fii ku fi dugg am yëg-yëg waaw ak koo mën a doon. alors waar ba nga duggee gis ay xale yu ndaw yoo xam ne ay trois ans lañ am euh, nekk ak seen yaay si biir prison bi noo nga ko gindee. waaw mais xam nga aussi euh, je veux pas euh, di li ma gis ci biir non non je veux pas de ça mais ñu ngi ñaan yàlla mu génne lañ fii nu mu gën a gaawee incha allah ku ci nekk nekk sa yite mais ñoom ci boppam ñoo ñu gën a gëm yàlla ñoo ñu gën a xam nga nangu nangu ndogal bi elles sont braves et c'est important. waaw. Uh, Waly ñu ñëw ci actualité uh, un tout petit parce que ah. gis nañ bi ñu inauguré stade bi uh, am na loo leen préparé woon malheureusement joué woo. mais la dernière fois tu as joué avec le président de la devant le président de la République après avoir joué avec le président de la République ak ñi nga àndal yëpp lan mooy sa réaction par rapport à ça ginnaaw coono bi mu bëree surtout. sama réaction gis ngeen ko ko président. waaw ah, wax ñu ko ñun. <laughs> non loolu amul benn coow li du dara. Ah, alors Wally Wally Wally. Wally Wally. waaw yéen a ngi gisandoo Wally Seck ngi doon di dem gis ngeen mbooloo mi ñëpp topp ko Wally Wally Wally coowil nag mu am kii mooy Wally Seck donc c'est normal